waaw tey de ñun de dañoo toog ni suñu suñu di di toog suñu suñu gaal fii nii xam nga dañoo yëgul ba dégg benn eh, bâtiment bu daanu quoi xam nga waaw ñu nit comme ay civil lañ mooy loolu ñu ñëw dugg si fekk affaire bi daanu ñu ñun am na benn maire ak benn xale bu nekk si biir xam nga après bi ñu déggee ne xale bi mu ngi si biir ñu ñëw fay gars yi woo nañ leen ñu yéex a ñëw xam nga tamit waa su ma booyee la ne ñoom ñoo njëkk a fii ak benn koto bu ñuy wax Sidi ñoom ñoo njëkk a ñëw dugg si biir xam nga di jë ak ay yeneen grand di génnee di maire bi xam nga biñ génnee maire bi ba si euh, ay temps maire bi mu génnee mu ne moom doomam mu ngi si biir mais biñ duggee si biir dañ fekk doom bi ak ñaari birig yu ngande nekk si tànk bi quoi xam nga après si lañ si lañ xaar si fire service yi gars yi ñëw ñun booy ñu ñun booy ñu ñoo njëkk commencé liggéey bi quoi bi ñuy dem di liggéey dindi di dindi xeer yi bi ñuy dindi xeer yi mais dafa commencé woon de trop tànk bi xale bi mu ngi yow mun ta mun ta wax bu baax mu ngi naan ma yaay su ma xam nga affaire bi tamit nekk lu métti waaw ñun mënuñ taxaw di dégg loolu noonu te xam nga nekk ay civil te mënuñ si jaaba Right, hello everyone. We are this is Network TV. We are here live, here live in Banjul in Angul where we have just witnessed a scene where a building has collapsed uh, right here in Greenpint, and we have been on the scene, and we, have, we were told that it had it happened at 13:53 in the afternoon, and we saw the fire service uh, men who were here and women, and also there are people, a lot of people gathered here, and we have spoken to some of the government officials. But we have been told that most of the comments we have been hearing here is that this is a construction failure. I was called by my mayor that this thing happened. The building has collapsed around uh, Hagan Street. And uh, from what I know, this building was constructed not long ago. And uh, what I'm seeing now, I don't know exactly who must have been the contractor or who must have been the, the, the construction agency, but this is a structural failure. As I can see, this is a structural failure. Yeah, that's, that's what I understand from it. It's, it's really a structural failure. It's not that the building is very, very old or so. But it is really a structural failure. And I think uh, as uh, a department uh, of the physical planning, they should be really in a position to be uh, making, doing some inspection to need to know exactly the real constru construction work that are going on in Banjul, so that they can look at the the the the, the actual uh, construction works and the, the, the structural uh, problems that, that or, or that, that some of these people are doing. Because if you look at this, uh, if you are constructing a building, there are certain requirements that you need. So if you don't have those requirements, I don't think they should, they should give you approval for, for you to, to, to construct. And they should be doing a periodical inspection on this side to know what is going on. This is, this is what I understand. And then the public has been lamenting that the construct contractors who were given this job didn't do a good job here and there was high outcry loud there. It's because social building be ak bii bii moo mag bii waaye bii nga ko how strong it is it's very strong it's very very strong waaye bii is a new one how come suma yi lii am naa ne it's not more than even twenty years am because of that the engineer who was building this has something to answer am na something to answer xaw ma kan la waaye build lii am na something to answer they will take court and he must be prosecuted. yii mos na persécuté suñu tombee ci yoon ñëw di dem di check building si because this is cheap cheap eh, eh, how do you la it must be a cheap labour jaaroon ci fu ñu war a jaar kon ñu demee nii léegi-léeg su ma ñuy consult physical planning ñuy def seen liggéey ñu ànd ak gars yi dem di check suñ soo soo bilee pare gars yi ñëw supervise check yëpp I think loolu moo gën a correct waaye suñu bàyyi lii fu mu nekk nii fu mu nekk nii yàlla yàlla ba ñu ne xam nga xale rek moom gaañu di côté you know life bu bëre mënoon naa jëlee fii you know semaine bi soo seetee semaine bi it's not nekkul semaine bu correct sax eh, seetlu nañu man rek it's very serious soo lii dafa lii la amul quoi man nag fekke wu ma waaye ni ma gisee di of it man ne actually as a Gambian and as a patriotic citizen I think I have the right pour ma comment tam te moo tax may comment di make sure ne semence yi ñuy toppal building si am na even non this one am na yeneen yoo xam ne yi ñu ngi around dañ war di dem di inspect di dem di check even ku bañ sa semence ñu ñu ñu jël force ñu seen on ordinance tas ko dem borom doo fi sampa waaw up to court level jeex na waaye su ma bàyyi lii fu mu nekk nii moom dafa gara a xoolal nit ñi man rek soo andi xaw nii moom nii la am man nag fekke wu ma affaire moo daanu ah you know ah wasam here fekke ko waaye ñoom ba ma gis ñëw ñëwee ni ma gisee dinañ actually, the, the one, the man who was um, uh, the engineer has something to answer anyhow. And the firemen also, we are told that they arrived at the scene very late. As usual, we normally hear people talking about their late arrival in scenes, and they have also not accepted the fact that they came late. They um, have based their argument that they came on call. It happens at 1.15 um, in the afternoon. That was the time they received the call. And immediately they received the call, there was a running call at the station. Then, while that call has been received, they rushed to the scene. But then there were a lot of you know, people around the area, so en entering was a kind of distance. But then, with the, thank God, no life was lost, and the job was done at the, at the right time, and they were evacuated by the fire service themselves to the nearest hospital. Wow, après si lañ jàpp fexe ba génne xale bi mais xam nga fii da ngay def dara ba pare gars yi ñëw aaki moom moo xamoon nu mu waaw dañuy ñëw fire service dañuy wax ne dañuy waxante dëgg soriwuñ fii waroon nañ mun a teel a ñëw Oh, that is the side of the uh, that is you know this is this is individual's self expression. every individual has the right to express your own way of thinking. I get in the point? The fire service immediately we receive calls. We don't need to wait at the station. You know what I'm saying? We just the time the moment the call reaches, that's the time they have to depart to the scene. So if others are so we that is that is their own side of this. But the fire service we are paid to serve the community, you know what I'm saying? We are paid to serve this country, irrespective of what. So whatever happens, the fire service will be on the ground to make sure that life and properties are being protected at all costs and at on time. And that is why we want calls to come on time so that we can depart on time. This is what we have. waaw maa ngi dëkk number 69 Hagan Street kool naa suma borom kër gi ba soona wax ko ne suy néeg bi daf dee seena dafa nekk di daanu di kapate ko mu bañ mu ne moom du ñëw moo ko doomam ñe ñoom ñëma wiñ ko mooy am fissure bi nekk fii wax naa ba soona dem naa laxatura sax fiskat fiskat ama bisisi gars yi ñu ne fa ma wax a borom mu ñëw moom su boppam ñu mun koo ñëw invite ba léegi invite ko so léegi li ma war a def mooy maa ngi ut néeg pour génn bu ko soog man suma laaj mu ma gënal a nekk fa moom muy receive xaalis te bëggut a defar day soona te ñu ngay report pour ngeen dimbale ñu ngi lii rek lay mun a wax bi ko soog fii soo demee si luwa ñu yaa ngay a borom kër moo am doole nga kii luwas amul doole te ñun amuñ doole rent ñoo laaj a am dem fay ko rent kon lay am si li ma fay su passé ko ngi comme wala ngi ngeen dimbale ñu defal borom kër yi ñu defal seen kër yi ñu ngi receive dañ ñi ñi seen lay am jër jëf And then that is what we have been picking up here um, from the different um, people that we spoke to. And then we also received that there were no casualties actually, but then there were people that have been injured.

waaw war nañu xoolaat kër yi waaw ñu wax si ñuy lancé seen politiciens yi ñu mun a jàppale si kër yi ndax si lii loraa nga lay andi ay xale yu ndaw ñoo si nekk xale bi si naroon ñàkk ay ay baganam tey nii buñ fi nekkutoon yàlla dina métti xale bu ndaw la wala nañu dimbale si loolu quoi ndaxte ñun ay ñun ay xale lañ te bëgg nañ tamit am ay doom tamit ñu dund si si si si si quoi si calme quoi ndaxte lii li ni loolu naay sut tey jii nii kër gu màgget te dégg naa kër gi mu ngi màgget mu ngi seer te gars yi nanguñ defar understand nga waaw And we are still here in Banjul at the scene where we have witnessed the collapse of a very big building here. And we have seen that the problem that people have been telling us is that in Banjul here, there are some residents that you are usually converted into warehouses. And it is obvious that when you convert residents, places that are meant for living, into warehouses where you keep so much goods, the pressure inside would be high. And then the capacity of the house to keep those um, uh, the, the, the, the, stock inside would be very, very difficult. And that has been the reason why, uh, oh, some residents have said that that's the reason why the building has collapsed collapse because there was so much pressure inside. The house was not the, the, the, was not really meant for keeping of goods. It was really meant for the settlement of people, and that's what we have been seeing here as the problem um, to the disaster here, uh, to, to, the cause of the disaster here.